Salam bonjour gars ma ngi ziar bu euh dama une vidéo rek ci ñaari mbir pour ngeen déglu ko live bu ndaw rek lay doon il faut que soyons sérieux quoi. vidéo yi bon ngeen YouTube di wax di wax il faut ñi chercher lu baax di ci wax lu am fi lu am fi tele yi ñoo bëgg ñoo gisul lu baax nit ñi ñoo gisul lu baax wan leen leen lu baax def leen ay recherche ngeen xool lu baax Sénégal am na ñu fiy def lu baax Sénégal am na xale ndaw yu mokkal alxuraan yu mokkal ay téere tey boo demee Touba ñaata nit ñoo fay bind alxuraan ñaata nit ñoo fay bind kaamil bi ay xale yu ndaw man sam benn xarit war na ma koo xamante ne bi bind na xaw ma 10 kaamil est-ce que ngeen wax ci loolu est que di wax ci xale bi am 7 ans mokkal alxuraan pourtant am na xale yi fiy def waa baytul atfal ñu ngi def ay ay série yu am solo mais pourquoi ngeen am na ñoo xamante ne nag lu bon tant amul ñoom duñ siiw seeni mbir yi ñuy def duñ siiw mais il faut ngeen di wane lu baax toujours ma wax ko wane leen lu baax di wane lu bon nit ñi xam ne xew ci dëkk bi baax na lool mais bu leen ci concentré wu chaque jour di wane lu bon di ci wax wax di yàq seen temps pour am ay vie pour fayee ko seen seen YouTube wala dara il faut ngeen di chercher lu baax. ñiy wax la plupart des personnes yi def ay vidéo di def ay kii naan dañuy ay chronique barki alquranu karim wallahi gëmuñu dara tous gëmuñu ko lu bon loolu noonu moo leen arrangé parce que bu amul woon ñoom seen seen YouTube duñ ci mën a fayeeku te nag ñu bari xam nañ li may wax da ngay bëgg ñu wane lu baax mais duñ ko wane ñu bëri dama leen message pour ñuy wane lu baax di leen wan lu baax mais ñoom ñoo ko bëggul am na ñoo xam ne bëgguñu ko soo leen woowee téléphone duñ la pour wan leen lu baax ne leen lii lu baax la di leen ko publier mais duñ ko def lu bon li mo len neex il faut affaire bi ñu wax ko quoi di len woné lu bax vidéo yi ngeen YouTube di ci def ay critique nan, li ni ngeen ko wara a defee mi la jëm jaru ko boycott len ngeen dem lu bax man ma ngi ni duma vidéo yoy duma ay série sax jot bi même su sax jot di série 30 minutes la durée sama temps moma may lolu di len woné lu sersé len lu bax amna ci réew mi man gis na fi ñu bax ñu bëré bëré ay xale ndaw di jang seen diiné di mokal di muru jigéen yi bëré mu bëgg muru bëri na jigéen yi muru jang seen diiné bëri na ay xale yu ndaw jang am bagu arab jang alquran juggé ci daara ja ñu ngi fi ñu yar ñu ñar seen diiné di teggin di wax wax yu normal du ngeen sersé ñom di leen duggal seen seen YouTube di wax ci ñom mais yeen daal lu bon li mo leen neex ngeen ci wax pour gagner ci am ci ay vie c'est pas comme ça bref loolu dama dama ko mënul muñ parce que sama cameraman bi nek fi motax man ma xaar ma def man sama vidéo boobu pour après me publier ko wala ma envoyer ko publier ko ci chaîne bi deuxième bi ma wara wax moy temps yépp yéne ngi déglu gaay yi naan dem bind ci dem leen bind ji bi ñu di wax forcé wuñ leen pour ngeen def ko seen arrangement lañ leen bëggal Sénégalais il faut ngeen yeewu quoi yeewu len. yeewu len ngeen xamné ne réew mi yéen ko mom. yeewu len ngeen xamné ne réew mi seen i fi tëdd yeewu leen ngeen xam ne seeni papa ñoo tabax ci réew mi ay kër man tiituma sama bopp de mais samay sama génération bii di ñëw damay leer ne man ni nii bu continue samay doom ay doon lii bu nii réew mi kenn defar ko amul mais gars il faut ngeen yeewu quoi gars li ngeen di xeex ay fédération football ak léegi loolu changer système bi c'est pas possible waxoon naa ne alquran nee na wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawl su ma bëggee alak ab dëkk damay def ña ko jiite nekk ay yàqkat dem leen ngeen bind ju ngeen voté élection locale yi mi ngi ñëw nii ngeen xool ñi leen arrangé ngeen teg ko seen gox yi moo gën te ngeen wàññ seen yii nii di dugal ay vidéo yu bon ay kii def lii bu leen ñu sonal di leen wane lu baax su ku ci bëgg lu baax boo seetaan sama vidéo bi nee ma envoyé ma lii ak lii laa soxla ma envoyé ko man xaar ba bëri na ñu ma xam ñoo xamante ni damay yéemu sax ci yàlla lim leen may ci yàlla lim leen may ci wàllu diine ci yàlla lim leen may ci wàllu jàng alquran ci yàlla lim leen may ci seenu mbaax ñuy wane ñuy def ci lu baax loo gis am na contraire donc vidéo bi tey loolu la woon euh, dinaa ñëwaat defaat beneen live boo xamante ni bi incha allah merci beaucoup